mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyuwaat di leen gërëm bu baax euh, teewaat fii ci ndimbalu suñu borom ak kàttanam di sant yàlla bu baax ci 30 minutes euh, chrono di gërëm ñëpp di leen euh, sant di gërëm El Hadj Modou Diouf Abdou Toob ak Ablaye ñoo nekk ci régie bi di leen ñaanal jàmm di nuyu bu baax a baax ñuy suivre di nuyu fàll bu baax du nuy ñëpp di leen sant di fàttali ni yéen a ngi suivre alxames ju ne bu 19 heures jotee maanaam ci waxtu timis ci solution info TV di beneen seenu solution bi parce ñu bari dañuy dégg solution technique benn la waaye ñun boo ñu bëggee suivre ci 30 minutes chrono da ngeen di dem ci solution info TV mën ngeen commenter mën ngeen di aimer mën ngeen di partager ñu ngi bàyyi xel bu baax ci commentaires yi parce que les commentaires sont libres kon di sant yàlla bu baax di fàttali ni Omar bun Xataab gi mu nekk ci kàddu gi. tey jii ñuy ñëw di dugg ci benn débat débat bi jëm ci mbiri assemblée nationale Sonko président wala premier ministre loolu dinañ ci wax joxe ci ay exemple ak lan moo ci suñ xalaat ak suñ gis-gis dinañ wax ci ñenn ñi niñ gisee Sonko ginnaaw sorti Souleymane Jules Diop ak Abba Mbaye ma wax nañ ci Sonko loo xam ne ñun xamoon nañ ko démb lu tax ñoom ñu xaar ba tey di ko wax beneen bi ci topp te mu solol ñu mooy ministre de la communication di Aliou Sall segg gi mu ne da koy segg médias yi rawatina les médias sociaux yi ñuy wax ci internet bi YouTube yeeg yooyu wala bépp média boo xam ne yaa ngi ci réew mi nga war a déclarer ni am nga kayitu juddu wala nga am nga kayit goo xam ne permettre na la nga mën di def sa liggéey yooyu nag doon ay points yi am solo yoo xam ne tey jii dinañ ko waxtaanee ci 30 minutes chrono bu dee xaj na ci di njëkkee rek ci mbiri présidence bu assemblée nationale ginnaaw résultat officiel yi conseil constitutionnel joxe ni téeméer ak fanweeri député dañuy ànd ak parti bi di Pastef li ñu am ci ay baat toll na ci 2 millions wala lu ko manqué débat bi nag ci taux de participation bi ñu bari ñu ngi koy wax cinquante wala trente wala mais man taux de participation man lu tax du ma bëgg di ci wax lu bari parce que taux de participation buñ koy natt dañ koy natt dëkk boo xam ne la vote est obligatoire waaye fii du dëkk boo xam ne dañuy forcer nit ñi ñuy dem di voter maanaam nit kiy voter moom mooy tànn dem voter wala mu ñàkk dem voter moom mooy tàll faral kii wala mu ñàkk faral fii comme vote obligatoire kon élection yi même bu dee fichier bi 7 millions ñoo ci ne bu 2 millions wala 3 millions wote ñooñ dañuy yóbbaale ñeneen ñi parce que li tubaab naan les absents ont tort maanaam ku tukki ñu reer sa ginnaaw kon ñi wote ñoom ñooy joxe légitimité loolu tax ñu bari ñi naan taux de participation di wax légitimité man dama jàpp ni même bu doon fukki nit ñoo tànn sax Sénégal moo leen tànnuloo kon fukki nit yooyu ki ñu tànn nan nangu ni kooku moom la askan wi wóolu ak ni mën a toll léegi lu tax ñu ñëw ci débat boobu balaa sax ñuy dugg ci assemblée dëgg-dëgg dafa am ñoo xam ne légitimité bi dañ koy remettre en question dégg nañ ci ku mel ne Cheikh Oumar Anne dégg nañ Moustapha Diakhaté jàppe sénégalais yi ay naata xóona sénégalais yi maanaam ay nit yu tekkul dara xamuñu dara moo leen dugal ci lii ñu gis ku mel na ne Madiambal gis keneen ak keneen mais ak lu mën a am la volonté populaire nanu ko respecté parce que ñoom la woon ak ñeneen ñu bàyyi leen fi tànn ñeneen loolu nag bu amee ci réew danoo waree topp la volonté populaire mooy li askan wi bëgg te ñëpp ànd ci te loolu la Sénégal mës doxee élection mosul am Sénégal te amul coow amul ay werante amul ay gise nii ak nee waaye bu élection bi xasee ba daanu ba ñu joxe les résultats officiels kenn waratu ci wax lu tax ma leen di jox exemple ci wàllu woowu boo gënee wàcc 88 93 mais boo ñëwee ba ci atum 2000 boo xoolee président yi ñu mës a am yépp deuxième tour la ñuy jàll. Abdoulaye Wade deuxième tour la jàlloon ci kanamu Abdou Diouf pourtant premier tour Abdou Diouf a ko ëpp mbooloo waaye bi ñu demee deuxième tour askan wi décidé ni Abdoulaye Wade mooy dem ñëpp dañ ci ànd. ji nga bi ñu ñëwee 2007 la même chose wadd bi ne gagné na dafa amoon ci ñi nekkoon ci opposition bi ci jamono yooyu ñoom Ousmane Tanor Dieng ñoom musa Niass ñoom ñeneen ak ñeneen ñàkk ànd ci ndamu Abdoulaye Wade mais ñoom fi ñu ko tegoon ginnaaw recours yi ñu def. mooy jinne yi ñëw woteel Abdoulaye Wade maanaam ay jinne kon ñooñ seen xalaat jeexoon na nga gis am na presse yu fi nekkoon doon contre pouvoir li liñ doon wax naan ndamal Abdoulaye Wade gi naka peuple bi assumé maanaam mel na ku mere peuple bi mais teewul danoo jàll ci leneen ba dem atum 2012 bi ñu demee 2012 Macky Sall lan la doon wax c'est un président élu par défaut maanaam 26 25 pour cent. moo yóbbu Macky Sall deuxième tour cinquante et poussière moo war a far président mais moom bi muy dem vingt six vingt cinq pour cent kooku bu ñu dee wax ku manque légitimité wala un président par défaut noonu la ñu ko doon wooye mais bi ñu demee deuxième tour mu gagné askan wi yëpp doonoo ànd ci ni Macky Sall moo gagné. waxuñu nii la gagné fii la jaar fee la jaar ay yooyu ay commentaire mais ñëpp doonoo nangu ba atum deux mille dix neuf. deux mille dix neuf bi Macky Sall gagné waatee foofu leen gis opposition deful recours deful dara ñu dem kër Idrissa Seck génn bi biñ génnee ñu ne duñ def recours biñ laajee Sonko dafa ne man deuxième laa man troisième laa du ma deuxième kon du ma dugal te élection yooyu ba tey jii boo dégloo ku mel ne Souleymane Diop déglu ay yeneen boroom xam-xam élection yooyu am na ñu ci seen xel ñaar ci ni est-ce que Idrissa Seck mu doon deuxième parce que balaa élection yi wax Mohamed Dionne wax nañu juróomi candidat ñooy jàll noonu la demee. jour ba nu defee élection ba ca ngoon wala avant élection yi wax nañ ñu 57 58 pour cent bi ñu ñëwee résultat yi moo génn am na ñu ne ay résultats yu ñu waajaloon la di ay résultats préfabriqués ci jamono am na ñu doon wax loolu mais teewul bi ñu jugee ci loolu Macky Sall dafa daje ak sénégalais ne je le président de tous les sénégalais ñëpp maa leen bokk ki ma woteel ak ku ma woteelul mais bi ñu demee ba ci biir ay jëfam wute na ak loolu mais teewul askan wi dañuy ànd ak yéen. mais beneen fait marquant pour wan na ni rek le peuple a toujours raison askan wi même bu tànnoon dof sax tànn koo xam ne baaxul tànn un dictateur tànn benn belligérant xoola yoo yoonu kenn nekku ci askan ñoo ko tànn Donald Trump ñeneen dafa dof dafa màggee dafa kii États-Unis tànn nañ président bu naax France bu ma jumul juumul Georges du dafa naaxoon pourtant français ko tànnoon mais def ko seen président bi ndéem ba mënatul ñu jëlee ko fa kon peuple du ñu décider nit ñëw taxaw ku mel ne Moustapha Diakhaté wala benn Cheikh Thiam wala keneen ak keneen wala ma jam wala keneen wala Yoro Dia wala keneen ak keneen di leen xas loolu c'est de manquer de respect au peuple te yooyu il faut que ñu koy maytu maanaam ñu nekk ci sportivité bu ñu tànnee ba pare ñu boolee lu ñu neex ak lu ñu naqat yépp xam ne lii mooy volonté peuple maanaam peuple bee ko sombi na leen bàyyi ñu naanal ko seen bopp. mais dafa am un fait marquant mooy 2021 ci mbiri Adji Sarr biñ jàppee Ousmane Sonko après ñu génnee ko après ñu génnee ko biñ génnee Ousmane Sonko man ñoo xam ne du ma tudd seen tur tey mais am na sax ñu doon wax naan nañ dem pale ba génnee Macky Sall ndax benn tànkam mi ngi ci biti mi ngi doo au mur mais jour boobu am na ñu doon woote place de l'obélisque ne bu sonk génnee nañ dem place de l'obélisque mais marche dem pale mais bi ñu demee ba ci ngoon mais siège u Pastef lan woote Ousmane sonk bi mu demee daf na leen li ngeen bëgg yéen militants yi xam naa ne mer ngeen mais duma ko def mooy dem place de l'obélisque ñi dem pale Macky Sall dañ ko fal cinq ans deux mille dix neuf deux mille vingt quatre lay jeexal bu ci bëggee teg leneen nag ñu jug mais fii ak deux vingt quatre moo jiite Sénégal te boobu yaa ngi gis Sonko ak Macky Sall ni seen diggante naqadee mais teewul Sonko am na la tête sur les épaules mooy bëgg ngeen ñu jël réew mi mais jotagul. imaginel Sonko toppoon jeunes yi ak yenn ci waa Pastef yi ci loolu mais ci guerre civile la ñuy dem parce que état kenn du ko jëlee noonu kenn du ko foqatee noonu naam Macky Sall doole mi ngi wàññeeku nin ko falee deux mille dix-neuf ñi bëri ñu ngi ciy lii mais teewul bi résultat yi génnee conseil constitutionnel biral ko ñëpp dañ ci ànd Sonko na nan dem ba deux mille vingt-quatre loolu mooy respecter la volonté populaire mais respecter la légalité de président de la république même bu légitimul am na légalité. parce que dañ ko élire pour un mandat de cinq ans bu ko naree romb nag ñu ko taxawal loolu da bi ñëwee ba 2024 Macky Sall bëgg fi jàpp élection ay avril ay avril ak juin ak ay décembre sénégal yi jug na ko déedéet fegal nga maanaam yor nga réew mi ba mu jeex léegi nag da ngay dem léegi nag loolu tax ñu ko doon appel naan ko le 2 avril nekkatoo président de la république du Sénégal te bu nu eggoon avril te defuñu élection mais Macky du jiitee ci Sénégal. maanaam coup de force lay doon wala mu nekk benn dictateur bu samp ay tànkam diju ci siguñu ne du dem loolu tax Sénégal mën nañ wax ni ci wàllu démocratie réew la moo xam ne doon ko yàgg naw ci wàllu woowu loolu tax ñiy taxaw di xep li ma sàmba am ak lu ma demba amul mais kenn du gis pee bi naan ndaare bi moo gaaw te boo xoolee ni élection yi di doxee tey jii bu ne la Pastef cinq département kese la perte yemuñu ci cinq département la perte mais partem rek la demee maanaam coalition la demee woon Diomaye président mais bi partem rek la demee loolu lu ñu bëri xamul bëri na ñun investir dans les départements ak liste nationale Pastef kenn xamu leen ñoo xam ne mun mënuñu yëngal mbooloo mun ñu dajale mbooloo aussi il faut se dire la vérité bu dul Ousmane Sonko mënuñu dajale dara parce que kenn xamu leen même fu mu dëkk miinuñu leen noonu la ko defoon local def ko ak suppléants yi loolu loolu tax tey ji booy mesurer Pastef mën nga wax ni dooleem dafa yokk parce que lim personne ci ay département deux mille vingt quatre ci élection présidentielle bii lim perte moo ko gën a néew li mu gañe moo ëpp li mu gañe moo ëpp loolu doonal rek ci benn jàngat ci ñenn ñi di xajamal ndamu jàmbur wala ñiy xas ñuy wote parce que ñiy woteel Pastef bu leen woteeloon ñoom du leen xas lu tax posé wuñu question lu tax Pastef am un million neuf cent mille voix ki topp ci ginnaawam Pastef ëppalee ko ñetti yoon ba ñeenti yoon léegi Pastef moo foor wala ay adversaire am ñoo faible ay wala ay parce que depuis 2001 ak tey ji ñu ngi doo gis ñu def assemblée nationale ñu gis ni opposition benn groupe parlementaire rek mën a am néew doole bi opposition bi néew doole loolu il faut ñu analyser ko te ni koy analyser mooy. Pastef dafa bari doole lool mais opposition dafa néew doole trop te loolu boo koy def jàngat ci élection présidentielle yu ñu weesu bi Diomaye président amee 54 pour cent mais deuxième bi ñaar la am doo ko sax xool 54 pour cent Amadou Ba mi ngi am 33 34 pour cent imaginez ni mu ko rawee maanaam da ko jiit sànni karawaas pourtant Ablaye Wade bi muy gagné Abdou Diouf rawee ko loolu premier tour te Abdou Diouf raw. Macky bi muy gagné ab Ablaye Wade rawu ko loolu 2019 Macky gagné na mais deuxième bi sax fon na ko tuuti Pastef bi jëloon troisième lu mu dee amoon na 700000 voix mais lu tax suñ opposition bi faible faible ci point que bu ñu demee élection dañuy néew ay kàddu loolu ci assemblée nationale néew ay kàddu loolu kon opposition bi au lieu ñu naan diw am na lii ak ñoom ñoo war xoolaat. ban genre opposition moo war a am te loolu nag pour mu amal day jafe mooy ñi maaseeg Sonko ak ñu matuñu tujj matuñu tabaski ñu waxante dëgg duñ def proposition bu baax ni nuy opposé wu baaxul xam-xam du ko lal dara du ko lal loolu mooy indi askan du leen bàyyi xel parce que boo xoolee le cas de Barthélemy Diaz dafa décevoir Bougane dafa décevoir nga xol keneen ak keneen te ñooñu peut-être ñoom ñoo waroon a diir mbagg Pastef amul beneen bi ci topp Macky Sall dafa décevoir parce que même boo nekkee fële di campagne sax en ligne mais campagne boobu ngay campagne sax nga teg ko ci yoon mais nga jóge fi huit mois après nga bëgg a gëmal sénégalais yi ni yow yaa fi gën loolu Sénégal du dugg seen bopp Amadou Ba la même chose maanaam opposition bi nag ñoo war a defarwaat léegi nag nan la ñuy defarwaatee loolu ñoo xam ñuy tëj seen bopp gi mais réew pour mu dox il faut que mu am ay équilibre maanaam pouvoir bi warul am doole dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mais opposition warul faible faible faible loolu lu ñu war a bàyyi xel la léegi nag lu ñu war a bàyyi xel la moo waral tey ji nga gis benn Abba Mbaye gis benn Souleymane Jules Diop seeni wax yi tey wute ak seeni wax yi démb loolu nag nga war ci jàng lan mooy li ñuy wax ci Sonko ak Jomaay maa ngi ci Jules Diop ak kii lay xola ma li ñuy wax Sonko ak Jomaay naan ñoo fi ëpp mbooloo parce que parti bu structuré la parti bu am base la ay intellectuel ak ay cadre ñoo teg boole parti yi doona am un discours nouveau indi bi yenn politique bu bees am ay cadre am ay arabisants am magi Pastef maanaam structure bi yeneen parti rafle moom la parti Pastef am Jules Diop wax ko ku mel ne Abba Mbaye wax ko pourtant loolu ñuy wax ñu ñuy xamoon nañ ko dem parce que yàgg nañ ko wax mais boo ko daan wax day jàpp da ngay parparloo parce que képp ku am gis-gis 2019 ak tey jii war nga xam ni partie bii bu tegul tànk fi mu ne day jël nguur même bu dul Sonko keneen day jël nguur parce que structure bi la maanaam doxin wi muy doxe la taxaw gi mu taxaw la mais patriotisme bi ñuy wane la parti boo xam ne bu bëggee dajale xaalis dajale ko bu bëggee dajale mbooloo dajale ko teg ci amul benn xëccoo ci parti benn xalif général lan am ñu Sonko bu ñu dajee doo gis kenn koo xam ne day jël sax pancarte di wane boppam drapeau Sénégal la jël teg ci seen ginnaaw di ko yëkkati fu ne. kon loolu moo taxoon nguur gi xam ko ba di leen karkaral ci yenn dossiers yi Adji Sarr ak ñoom seen mais état kenn ëpp leen information parce que Jules Diop ci xibaaram mi ngi naan nguur gi 65 pour cent ci ay sondage yoo xam ne ay institut américain ñoo ko defoon mooy bu doon Ousmane Sonko dem na élection mais 65 pour cent yooyu sunk da koy gagné loolu Jules Diop ko wax nee na état bi amoon na sondage yi wane ni Sonko bu demoon élection 65 pour cent lay am. Abba Mbaye aussi tamit ñëw wax ci doole ji Pastef am pourquoi ñu xamoon ko démb ñoom doon gëmal Sénégal yi leneen kon ñoom fi ñun fi ñu egg ñoom dañ ci am responsabilité pourtant bu ñu bu ñu waxoon dëgg wax laa vérité wax laa réalité parce que li ñu xam ni xamoon nañ ko bu yàgg ñun ëpp ñu leen xam-xam ëpp ñu leen dara mais pourquoi il attend aujourd'hui pour ñëw nañu noo nii la affaire yi demee te wolof nee na teel a nangu day woyofal ay duma léegi nag ñu ñëw ci débat bi ñuy wax Sonko premier ministre wala président assemblée nationale loolu débat boobu ñun waxoon nañ ci ci talk show ni ñun doona bëgg Sonko nekk premier ministre léegi waa Pastef kan la ñuy tànn pour mu nekk président assemblée mais man pour man ak kun mën a tànn nan tànn koo xam ne amatul ambition politique du ma tudd tur koo xam ne seesu président bi yitteelu ko darajal yitteelu ko mais fexe ba assemblée bi doon une assemblée de rupture lu tax nag man ni Sonko dafa war a doon di doon premier ministre Sonko moo ñu jaay benn projet ba ñëpp ànd ci jaay ñu benn référentiel ba ñëpp référé wu ci mu jëme ñu deux mille cinquante wax ni souverainisme wax ñu rupture wax ñi développement boo xam ne day endogène dañuy wéeru suñ doole di bëri pour am koom yooyu yëpp mu jaay ñu ko ak yeneen rupture yoo xam ne ñi ngi koy xaar kon kooku nekk la chef du gouvernement alors que le président de la république waxoon na ni ah bu nu amul vice président nan am un premier ministre boo xam ne dañuy renforcer ses pouvoirs kon loolu mooy li tiital Cheikh Oumar Anne parce que Cheikh Oumar Anne dafa ne ñii amuñu légitimité te du nangu benn réforme ñoom ñu koy dugal assemblée nationale kon il attend des te réforme yooyu bokk na ci man li may proposé mooy dauphinat bi ñu xoolaat ko nan la ñuy def ba le premier ministre mën a nekk le dauphin di président de la république bu dee am na ay réformes yu ko maye man ànd naa ci. mais Sonko dafa war a wéy di des premier ministre le président de l'Assemblée nationale ñu xool nan lañ koy pousser naam mooy jiite assemblée nationale duñ wàññi doole assemblée nationale mais président de la république bi pousse rek président assemblée bi war ko wutu yooyu ay risque la te loolu lu tax mu doon ay risque tey opposition bu ñu jëloon nguur gi président am ngant mais kii jël Sénégal opposition lay bokk lala foofu fa la Sénégal di jëm maanaam Barthélemy Dias nekkoon président de l' assemblée nationale ak li mu wax avion du naaw oto du daw réew mooy bloqué ñu def ko président assemblée nationale ñoom ñu am fa majorité mais Sénégal day bloqué léegi bu dee moom moom mooy kii wutu président bu dee dafa am ngant président xëy am ngant fu ñu jëm fu ñu jëm tey jii Amadou Mame Diop situation bi Macky doon créé mënoon nañ egg ci niveau wu Amadou Mame Diop nekk président Sénégal loolu mënoon na ne ak personnalité Amadou Mame Diop heure bu tiitee woo takk der woo militaire kooku est-ce que bu demoon ba na ñàpp ci nguur te est-ce que du jël armée bi teg ci wetam indil ñu ab régime militaire wala autoritaire mën na ne kon réew mi dafa laaj ay réforme parce que réew mi ni mu ko tabaxee ba mu toll fii bari na ci loo xam ne Senghor bi mu jugee ci Mamadou Dia bañoon a jël risque ak bañ a ñàkk yenn privilège yi lépp da ko tëggoon ci jëmmam mais réalité 1963 ah ak réalité 1981 82 83 bi Abdou Diouf di ñëw réalité yooyu nekkutuñ ci kon pour man assemblée dañoo war a def ay réformes. léegi nag Sonko premier ministre joxe woon naa fi exemple Macky Sall en 2007 2008 dañ ko jëlee premier ministre yóbbu ko assemblée nationale bi ñu ko yóbbee assemblée nationale ci leen ko jaxaseeg Abdoulaye Wade fekk mi ngi doon nekk ci wetu Abdoulaye Wade du neex a jaxase moom Macky Sall mais pourquoi ñu poussé ko mu dem assemblée nationale parce que dafa sori Abdoulaye Wade bi mu soree Abdoulaye Wade ci leen créé ay fen ñi am na ñu ñi tëggoon fen yooyu am na ñoo xam ne faatu nañ kenn du tudd seen ne non Macky moo waroon a convoqué Karim Wade assemblée nationale tool yi foofu la jóge bi mu nekk premier ministre Macky mënuluñ ko dara parce que boobu jege na Abdoulaye Wade réeroowuñu man fii ak ñi ngi ànd nga may gis ma lay gis nit mën na bañ a dugg suñu diggante mais bu ma la commencé di sori nga may sori nit xaj na suñu diggante kon pour man Sonko dafa war a nekk primature Diomaye nekk présidence heure bu ko waree gis gis ko heure bu ko waree dégg dégg ko imaginel Sonko nekk président assemblée nationale pré assemblée nationale war a saytu exécutif bi ñu convoqué koo xam ne président bi àndu ci foofu la réeroo di tàmbale jàppal bàyyil nan ko convoqué buñ ko convoqué wala ñu tànn beneen premier ministre premier ministre boobu ñu war ko woo assemblée nationale boobu Sonko mooy président assemblée nationale ñu war a woo premier ministre boobu est-ce que du ne Sonko day day régler ay comptam day wàññi doole gouvernement bi premier ministre parce que premier ministre bu amoon bu dul Sonko kooku day am daraja day commencé am légitimité ci wàllu politique léegi day commencé doon koo xam ne day commencé am mbooloo am na moyen am na visibilité alors que premier ministre moo ëpp visibilité président assemblée nationale président assemblée nationale bu dul session doo ko gis doo ko dégg teg ci nit nguur gi doxee du ci mën a wax parce que séparation du pouvoir mu am législative ak exécutif imagine ñu la Sonko yow ni nguur gi doxee sañotoo ci wax te moom mooy nguur gi moom kon na toog première ministre te exemple bu mel noonu amoon na Côte d'Ivoire exemple Côte d'Ivoire bàyyi leen ci xel dafa am ki ñuy wax adoo Alassane Dramane Ouattara bi mu xeexee ba jël Côte d'Ivoire daf ci àndoon ak waa ji ñuy wax Guillaume Soro Guillaume Soro ci noor bi la jóge woon doon jiite ay rebelle ñoo ñoo jàppale Alassane Ouattara ba mu jot Côte d'Ivoire bi Ouattara jëlee nguur gi Guillaume Soro nekk premier ministre ñu dem ba bis ñëw ñu créer benn situation situation bi ñu créer mooy kii di Guillaume Soro nekk na premier ministre jege gi mu jege Ouattara neexu leen léegi ñu ne leen créer de telle sorte ko Guillaume Soro sori Ouattara bi Guillaume Soro demee nekk président assemblée nationale bu Côte d'Ivoire fa lañ jaaree wàññi dooleem ba tey jii digganteem ak Ouattara mooy bu wàccee Côte d'Ivoire bu deful nànk dañ koy tëj ci kaso bi Guillaume Soro mi ngi exilé di dem fu ne tey jii moom mooy pire ennemi bu watara alors que ñoo xeexoon ba jot nguur bi mu nekk premier ministre am amul woon lu garaaw mais bi mu demee ba nekk président assemblée nationale ñenn ñi dañ ko gëmal ni il faut que nga wàññi dooleem parce que bu nekkee sa dauphin wala leneen ak lu yu ne ñu dugal ko ci na ko soro giyam sax li mu bëgg mooy wutu la ci nguur gi. ñu joteeg watara te watara xamoon na force bi Guillaume Soro yor mooy Guillaume Soro amul woon légitimité ci ivoirien yi mais dafa amoon une benn force rebelle ak militaire bu nekkoon ci ginnaawam loolu yàq seen diggante imaginal ñoom ñaar ñiñ jege woon ñoom ñaar mais bis bi Soro Guillaume jigo primature dem assemblée nationale la tàqalikoog Ouattara looloo tax tappalekat yi di wax yépp xam na li xew ay intellectuel lan kenn ëpp leen xam-xam mais danoo bëgg yoonu pale bi yomb ci ñoom mais aussi danoo bëgg a diviser pour mieux régner parce que danoo jàpp ni fekk Sonko mi ngi ci pale bi du demee noonu léegi nag fi ñuy tëje mooy loo xam ne dégg naa ñoom Sandiogou ak ñoom euh, Assane ak son bu wax ci ci de la communication ministre de la communication di Aliou Sall wax ni dañuy assainir média yi média yi ñuy assainir mooy dañuy fexe ba képp koo xam ne yor nga média nga ñëw bindu muy seen YouTube ak yépp mais du nangooti seen YouTube yoo xam ne tey ji dañuy xëyre di ibite duñ xam fu ñu jóge réew dañ koy sécuriser réew dañ koy aar mais li ministre bi war a maytu waaw man nag du ma wax li li nit ñi bëgg a dégg damay wax li ma gëm mooy daa am lu leen di jiiñ ñoom mooy régime autoritaire autoritarisme passif day xeex média yi day takk seen biir loolu réglé goo ko ci wàllu impôt am na ñuy wax loolu te man dama jàpp ne danoo war a fay impôt mais danoo war a maslaa ak média yi parce que tey liberté d'expression moo tax Pastef ñëw au pouvoir média yi ñoo tax Pastef ñëw au pouvoir Ablaye Wade fi mu fekkoon réew mi bu ko fa bàyyi woon tey jii kenn tal média bay lii mais Ablaye Wade bi mu ñëwee dafa yaatal wolof nee na ku yokkul da wàññi ci Ablaye Wade ci la rajo bare ci la télé bare ci la wax sa xalaat amee damay bañ erreur bi dal Macky Sall ba mu daanu mu dal leen Macky dafa jàppoon ne presse bi. ñooy tax du réussir mu lëngoo ak ay nit ne damay xeex ak presse Macky Sall demoon na ba ay wax sa xalaat yi wax sa xalaat man daan naa ko def di ko déranger ak revue de presse di déranger Macky Sall parce que dañ ko gëmal ni Ahmed Aïdara mii xëy di revue de presse wala Pape Alé ñoo tax sénégalais yi gëmatul la ñu gëmloo ko ni wax sa xalaat yi ñuy ibbi ci rajo yi. ñoom amal Gueye toog fee keneen ak keneen moo tax ñu ñu déglu la moo tax Macky Sall mus na toog publiquement naan dinaa régulariser revue de presse ba mu ci dalee wax tam mënul dara ci revue de presse Macky Sall mënul dara ci wax sa xalaat ba réseaux sociaux yi ñëw réseaux sociaux yooyu bi mu ñëwee Macky Sall am une certaine presse bu mu téye loxoom léegi xeex naa ak presse bi mënatu ko léegi xaalis la utiliser pour téye leen pour xeex ak Sonko Sonko jaar ci réseaux sociaux yi ba nekk président de la République ñii Aliou Sall di wax naan ay chaîne YouTube leen ak ñoomin seen ñooñu tey ñoo tax pa Pastef ñoo au pouvoir de tey boo nee chaîne YouTube yi non dinaa leen régulariser dinaa lii di nga bëgg a toog si sa place parce que remaniement day am ministre bu ne di ko gis muy jéem lu ne bëgg a toog seen place ak neexal Sonko ak Jomaay dina tax ministre bu ne dugg ci lu ne waaye bis boo duggee ci tëj ay chaîne YouTube wala nga naan ne ki li nay bind di nga la liberté d'expression di nga dafa am ñoo xam ne. choisir ñu liggéey Walfadjri choisir ñu liggéey TFM choisir ñu liggéey 7TV choisir ñoom danoo nekk ay journaliste indépendant indépendance boobu ñu bëgg moo tax ñu dem créer seen YouTube di ca wax la ñuy wax te bari na ci ñoo xam ne ñoo tax tey ji projet Pastef mën a jar ba nekk au pouvoir di nga li la faloon bu ko folli dogal yi nga ni dañ koy jël bis boo ko jëlee ñu bari dan naan utiliser ngeen réseau yi ba falu mais bëggootoo leen keneen utiliser ko bu dee ministre communication la moom Aliou Sall poste a ngi nii poste jotuñu seen salaire télécommunication doxul Sénégal kii nu mu tudd am na dëkk yoo xam ne réseau amu fa connexion seer na yu bari tey jii moo gën a nekk priorité ci moom que di lijjanti ay cheikh yu seen YouTube parce que Sénégal ci wàllu télécommunication dafa am crise dem lijjanti poste dem lijjanti réseau téléphone Sonatel sene ne ne ne ni ñuy ŋàccee sénégalais moo gën a doon farata ci moom mais li gën a ci àddina mooy nga jàpp fekk li gën a yomb nga koy def seen YouTube yi lay wàdd mënu ci ñoom dara internet bi Macky Sall ci ñoom ne bu ci dem da lenn moo mën a am mooy ñu ne képp koo xam ne yaa parce que réew da nga koy sécuriser ñu mën la identifier xam la tey jii ministre dafa doon joxe liggéey mais am na ñu ko xaarul ci moom comme man li may faral wax nguur xaaruma liggéey ci nguur mais bi léegi nag ñeneen sénégalais am seen i pexe dem uti seen i matériel dem uti xam-xam dem uti seen lépp uti seen benn seen bi ci daw dépasse tey jii li fi nekk ci ay média mënul jël journaliste yi ñu formé yépp mënul ne li fi nekk ci ay média mënul jël journaliste yi ñu forme yépp dans le tas àdduna dox ba internet ñëw mu doon benn économie numérique boo xam ne pour développer ëllëg àddina internet dafa bokk ci liy dundal nit ñi ñi amul fan jëm fa lañuy dem di fa daw dépasse créer seen i chaîne YouTube ñii leneen ak leneen ñii leneen ak leneen man maa lay xelal bul dugg mukk ci logique gu nañ seen bi wala ki ibbi seen ki ibbi seen. nan la ko yombalal nga ibbi parce que gi nga la liberté d'expression kenn du ko rey te bis boo leen paree ci média classique yi ak média traditionel yi 7TV ñu ngi jooy Sen TV ñu ngi jooy TFM ñu ngi jooy keneen ak keneen mi ngi jooy ITV e nit ñi ne non non fay impo mais bis boo leen commencé dugg ci lu mel noonu ci réseaux sociaux yi mooy da ngeen bëgg a tëj bunt bi tëj palanteer bi léegi fan la nit ñi di nooyee. alors que nit ki xamu lan moo koy defal Ablaye foofu laay tëjee mooy lu mu bëgg a wax wax ko lu mu sañ a wax wax ko léegi li état war a def mooy cybercriminalité mi ngi fi ku wax loo wax loo war ta wala nga def loo war def comme Cheikh Thiam ak keneen ñu woo la àtte teg la ci yoon mais joxatoo leen nit ñi liggéey di tëj ay bérébu liggéeykaay damay tëjee li Souleymane Jules Diop wax korok ku xam communication la yàgg na ci nee na dama ñëw togg ak Macky Sall na ko xeex bii ngay xeexal Sonko bu yeboo nga bañ ci booleeg presse bi ne Macky Sall na ko lu tax mu ni ko li nga war a éviter mooy la jonction des forces maanaam réew ñëpp merandoo ñëpp di waxandoo benn wax bi tey jii médias yi amatuñ publicité Ablaye Balma médias yi amatuñ doole léegi fi ñu yaakaar mooy créer ay chaîne YouTube Walfadjri dafa am chaîne YouTube TFM am ko Sen TV am ko 7TV am ko liñ mënul am ci publicité ñu ne nan dugg ci médias sociaux yi pour mën di ko récupérer mais yow joxatoo leen publicité joxatoo leen subvention joxatoo leen aide à la presse nga ni noo léegi damay contrôler YouTube bi loolu nay loolu mooy na média yi tëj kon bëgg a nekkaat ministre bëgg a neexal Sonko bëgg a neexal Jomaay bu mu tax ngeen dugg ci yenn nii dee leen demee xel liñ la dénk presse moo ci gën a tuuti ministre bi poste nga nii 3500 travailleurs ñu ngi fa duñ jot dara duñ lekk rek il faut que ñu demee xel ba ñu demee xol Sénégal bu tàkkule liberté d'expression moo ko may nan bàyyi gars yi ibbi seen seen YouTube bi ubbi seen lii di doxal li ñuy doxal nguur gi joxatu leen liggéey nan bàyyi ñu liggéey te seen YouTube yooyu ñoo fi noo tax ñu gaa yi fal Pastef de léegi nga falu nga ni non dama koy lijjanti dama koy tëj nan ko contrôler mais na ne faut ngay radicaliser wu contre la presse waaw loolu il faut éviter ça kon mu ngi noonu di jégalu ñëpp di bali ak ñëpp. di gërëm Ablaye Diallo <laughs> Abdou Top <laughs> ak El Hadj Modou ñoo nekkoon ci régie bi Omar Bun Khattab Gueye ci kàddu gi beneen 30 minutes euh, chrono incha allah euh, alxamis bu 19h jotee ci solution info TV kon na 21h ci solution TV nag am nañu entretien bu am solo bi ñu def ak Ousmane Diagne bu mafia kàcci kàcci nekk PCA bu Fera mais aussi. bokk ci Pastef bu 21h ci Solution TV ngeen mën ko suivre tey ci alxamis ji mbokk yi jërë ngeen jëf ba beneen alxamis incha allah.